mbokk yi incha allah ñi ngi war a jël tey suñu ñaar fukkeelu aaya ak juróom ñett ci suuratul mu'minuun fa ida stawayta anta wa man ma'ak إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk yi ñi ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala mi ñi may tawfiq ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem loole war a nekk programme jullit ba baa muy daje ak boroomam subhanahu wa taala yal na yàlla yërëm sunu mbokk ba abubakar jaabir aljazairi mi nga xamee ne nii moo doon taxawi lu mel nii te juma yonente ba salallahu alayhi wa sallam daana wax ni soo demoon tey Occident yàkkamti nañ six heures jot ñu jëkkante night club yaag restaurant yaag cinéma yi mu ne amma yow julit yàkkamti nga wàcc sa liggéey ngir dem ci néegu borom ba mu ne nag diggante timis ak géey ni mu gàtte jullit ñi waroon nañ ko programmer di ko jagleel néegu borom bi ba moom lam doon taxawee rahimahullah mooy bus bu nekk tey bu tafsiré ëllëg mu jàngale xadis tey bu tafsiré ëllëg mu jàngale xadis ba baa ko yàlla di téye ci ñàkk kattanam mi ngi noonu rahimahullah loolu kon jullit ñi ngeen bàyyi ci xel bu baax xam ne jataay bi niñ leen ko waxoon alarba passé nekkul jataayu sakku xam-xam kese waaye jataayu jaamu yàlla la toog di déglu kaddu borom bi jalla wa ala ci tuyaaba yi gën a màgg la bokk yal na yàlla jagleel ñu ko kon incha allah Cheikh Ousmane بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom ma ngay wax ak jaamam ba nuux alayhi salaam fa ida stawayta anta wa man maaka ala alfulk soo demee ba ngeen yemoo daa di toog yow yaag ña ànd ak yow ca gaal ga fa qul alhamdulillah neel mboole mi cant day ñeel na yàlla alladi najjaana min alqawmi alzalimin yàlla mi ñu musal ci xeetu tooñkat yi wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka gannaaw ba neel ay yàlla wàcce ma wàcce waayu wàccukaay bu barkeel wa anta xayrul munzilin yow yaay ka gën ca ña nga xam ne ñuy wàcce inna fi dalika la ayat nekkoon na ci qissa nuux day ay kawtéef wa in kunna la mubtalin donte na ñun nekkoon nan di aji nattu thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin gannaaw ba lañu sosee ci seen gannaaw maas geneen fa arsalna fihim rasulan minhum ñu yónni ci ñoom yenente bu bokk ci ñoom an i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru yenente bi na leen jaamu leen yàlla ñeelu leen kenn ku ñi jaamu ku ñu war a jaamu ku dul moom afala tattaquun ama ndax di ngeen ragal yàlla wa qaala almalau min qawmi noonu la waxe notaabal ya bokk ci xeetam alladina kafaru wa kazzabu bi liqaai al axira ñooñu nga xam ne weddi nañ yàlla fen loo ay aayaam te mooy weddi ay aayaam ba tey it daa di weddi it ne al dajab alaxira ba dana am wa atraf wa atrafnaahum fi lxayaati dunia te ñun yàlla ñu xéewalal leen ba ñu giijal ay ba barile ci dundug àdduna gi ma haada illa basharun mislukum ñu ne kii day du dara lu dul nit ku mel ne yéen yaakulu mimma taakuluuna minhu moom mi ngi lekk ci li ngeen di lekk yéen wa yashrabu mimma tashrabuun te mi ngi naan ci li ngeen di naan yéen mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee àllarba bi wees suñu borom yàlla yónni woon na suñu maam nuux mu ñëw ci ña doon dund ci kaw suuf fekk ñu commencé ak bokkaale waar na leen guddi ak bëccëg waaraate bu yegg ci presque junniy at waa dëkk ba mujj ko nag menacé na ko bëggatuñ la faa déggati ngay wax ca la woo boroomam ngiree boroomam dimbali ko suñu boroom na ko defaral gaal boo xam ne ñoo lay xamal ni nga koy defaree ñoo nit ñoo koy surveiller gannaaw bu gaal gi pare xoolal ñi la gëm nga woo leen dugal leen ci xoolal lépp looy soxla woo gannaaw ba nga dugal ko ci gaal gi ci peer ngiri suuf ñi ci nekk ñépp dañoo nar a lab te itamit ña nga xamee ni nii dañoo yeeyoo lab googee kenn du ci mucc bul ma waxee ci ñoom loolu lañ jàngoon alarba bi paas suñu boroom nag na ko boo demee ba dal ca kaw gaal ga yaag ñi ànd ak yow na ngeen sant yàlla mi leen musal ci xeetu tooñkat bi ca mbokk jullit mi ngi noonu galawaay jullit foo tollu del sant yàlla ci yàlla mi na musal ca lépp loo xam ne dalay lor loolee na doon ay toñkat lañ loolee na doon ay feebar la loolee na doon lum mën a doon ci musiba yi jullit da nga caa war a sant sa boroom ndax amul kenn kuy muccale ku dul moom gannaaw ba it mu ne kaw na nga ma ñaan ma wàcce la wàccew yu barkeel waaye mbokk bu ñuy delloo ci yeneen ayat suñu borom subhanahu wa taala ma nga ñuy wax ci suratu zuxruf ne moom mooy ka nga xamee ni nii moo ñu bindal ay gaal bindal ñu ay waruwaay yu mën a doon suñu demee ba war ca gaal yooyee su ko defee ñu ne subhaana alladi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lu munqalibun bokk na ci sunnay war la ngay war faslaam giléem otolam otolam avion ak lépp loo xam ne yaa ngi koy war bokk na ci sunna soo koy yéeg nga wax bismillah gannaaw ba nga ne alhamdulillah nga wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar gannaaw ba nga ne subhana allazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin ñi ngi sant yàlla mi ñu tàggate lii ndax bu dul woon ak yàlla rek ñun duñ ko mën a not ca ñun de ci yàlla la ñuy dellu loolee mbokk ab zikr la donte ne ali ibn abi talib def na ko ci kanamu ay moroomi sahabaam gannaaw ba mu dolli ca mooy allahuma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaxfiru zunuba illa ant faxfir li mafiratan min indaka warhamni innaka antal ghafurur rahim daal di jéggalu boroomam gannaaw ba mu mu daal di muuñ biñ ko laajee moo ali li ngay muuñ lu mu doon mu ne mooy man day lii ma def ci seen kanam dama ko yonent bi da ko def suñu kanam daal di muuñ gannaaw ba ñu laaj ko mu ne waaw sa borom yàlla day heure bu ab jaamam nangoo xéewalam reconnaître ay bakkaaram suñu borom day kontaan ci moom ba muuñ lu mingoog ay melokaanam moom mi nga xam ne dara melul ne moom jalla wa ala mbokk loolu ma la wax da ngay góorgóorlu pour mën koo jàng waaye bul fàtte heure boo yéegee waxal bismillah alhamdulillah allahu akbar subhanallah astaghfirullah xanaa lii moom ku ne mën na ko mi nga noonu loolu ñu wax yépp loolu lay tënk heure boo yéegee sa oto yéeg nga avion yéeg nga lu mën a doon ngalla waaye bul fàtte yéeg wax bismillah bul fàtte sant yàlla alhamdulillah bul fàtte màggal yàlla allahu akbar bul fàtte sabbal yàlla subhanallah bul fàtte jéggulu yàlla astaghfirullah ca mooy la gën a néew ndax kat mbokk julit julit heure bu nekkee ci tukki war naa xalaat ne lii tukki la bu feeñ waaye mi ngi ci tukki bu nëbbu fi mu toll nii mbokk ñi ngi tukki jëm àllaxira ñi ngi war li ñuy tuddee le temps am déet ku nekk ci ñun bi ngay dugg ci jàkka ji bala ngaa génn une heure de temps wàññeeku na sa diggante ak alaxira kon ci yàlla la ñuy dellu loolu la suñu borom wax gannaaw ba nag mën a ko nuux ñaanal ma nga ma wàccele wàcciwaayu barkeel te it mbokk loolu ku ne war na koo xalaat yaa ngi yéeg naka ngay wàcce tey jii bu ñu lay wax dañ naan en moyenne trois mille personnes daan dee ci oto yi par jour li nga noonu par jour bu dee lu mel ni dëkku Sénégal léeg-léeg mën na dem ba ay sept cent à huit cent par an mooy ñi nga xam ne dañoo dee directement ci accident bi bu dee nag ñiy dee ci séquelles yi loolu moom mën na yegg sax deux mille ba trois mille waaye ñiy dee directement ci accident yi chaque année daan ci enregistré lu jege sept cent personnes kon yow yaa ngi yéeg sa oto ndax da nga koy wàcc ak noo koy wàccee looloo tax nga mu ñaan yàlla wàcce la wàcce waay bu barkeel te it nu yàlla wàcc na ko wàcce waay bu barkeel sunu borom mu ne ko ihbit bi salaamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman maak nu wàccal ci jàmm ji bawoo ci ñun ak barke guy wàcc ci yow ak ñi ànd ak yow loolu it mbokk tàmmal ko sa bopp yaa ngi jëm ci tukki ñaanal yàlla wàcce la fa wàcce waay bu barkeel yaa ngi tuxu ci kër ñaanal yàlla wàcce la fa wàcce waay bu barkeel soxna see ma ngay sëy ñaanal yàlla wàcce ko wàcce waa yu barkeel bal dañ naan ali ibn abi talib radiallahu anhu heure bu masaan dugg këram daana wax nuyu nuyu nuyu waa kër ga gannaaw ba ne allahuma anzilna munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin yàlla demoon naa ba dikk yàlla nag ma wàcce wàcce waa yu barkeel ci loolu mbokk dara barkeelu lu dul yàlla barkeel loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom nag mu ne ay kaawteef nekk na ci xissa bi ma leen nettali xissa nuux kaawteef ba bokk na ca muñ gi nga war a muñ yow julit xoolal yonent yàlla nu wax mille ans la muñ sa dund gi bu yàggee téeméeri at lay doon moom mille ans mi ngi ko muñ gannaaw ba nga xam ne dëgg lu mu néew néew doole muy mujj loolu nga bàyyi ko xel bu baax te it nga xam ne ñiy mucc ca kanamu yàlla mooy ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak ngërëmal yàlla yàlla na yàlla boole ñu ci suñu borom ifa daal di tëj page boobu daal di ne gannaaw ba ma sos ci seen gannaaw ay nit ñeneen mufassiruuna yi am nañu ixtilaaf ndax qawmu huud la ndax ñoom ñu ñëw directement gannaaw nuux am qawmu saalix ndax la yàlla di tudde as sayxa ba mu yónni ci ñoom ala kulli xaal suñu borom mu ne yónni naa ci ñoom yonent ca xeet ba ñëw ci gannaaw yonent bi ñëw mu ne leen kaay leen jaamu yàlla yeyoowul ñuy jaamu kenn ku dul moom xanaa du ngeen ragal yàlla moom bi loolu amee notable ya daal di jóg te mbokk xam leen ni diine moo ñëw ngir équilibrer société bi amma notable yi ci société bu mu mën a doon dañoo tege ci kaw nit ñi di leen noggatu islam nag day ñëw xamal ni ñépp yem ci kanamu yàlla rehausser ña nga xam ne dañ leen doon suufeel loolu tax diine ña koy gën a nangu mooy ñañ suufeel amma notable ya jamais duñ ko nangu ci noonu la notable yi jóg daa di ne hey yéen suñu xeet te mooy suñu borom melal leen ci melokaan yu day waar melokaan bu njëkk ñoom weddi nañ yàlla aaya yàlla dikke leen ñu weddil ko allaaxira gëmuñu ko ci xéewal yu na gàññ yàlla xëpp ne leen ko ci kaw suuf loolu it mbokk mu bañ laa nax xéewal yi yàlla di xëppaate ci ay yéeféer xéewal yi yàlla xëpp ne leen ko ñu ne hey ñun kii gëmuñu ko tey gëmuñu ko ëllëg kii nit la rek comme ñun muy benn te moom mi ngi lekk ci ñun li ñuy lekk ci mi ngi naan ci li ñuy naan ba pare naan yàlla moo ko moo ko yónni su ngeen toppee nit comme yéen day kon yéen da ngeen doon ñoo xam ne ñu perte ngeen mbokk loolu moo mas a nekk tontu yéeféer mooy nit comme ñun doonte ne jurit ñu bari mbokk julitit bañ demee ba màggal seeni sëriñ paasele nañ leen ñu nekk nit comme ñun am déet dañuy gis ñu bari sëriñ bi xalaatuñu ne day lekk comme ni nit ñi di lekke day dem wanag comme ni nit ñi demee wanag day summeeku di ànd ak soxnaam comme ni ko nit ñi defee loolu seen xel xalaatu ko téeméeri junni yoon moo ñu mbokk loolu moo am de loolu mooy li am mu neex la ak mu naqari la mi ngi noonu su ko defee nuñ koy contourner da ngay dégg ñu naan yaayam ci zahir ay doomam ci zahir mbokk zahir amul de sëriñ bi fa nit ñi jaar la jaar doogu am doom am déet sëriñ bi day lekk yaa ko gisul fu ñu la ko wane mën a jajj jajjaar day lekk de day lekk day naan su ko defee kon mboolem ku yàlla mos a yónni yonent laam lu mu mën a doon day lekk day naan muy wane ne jaamu bi yàlla kese la loolu di mbir boo xam ne nii ku ne da cee war a bàyyi xel mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم
fikum suñu borom mu ni wala in ata'tum basharan mislakum su ngeen toppee nit comme yéen day innakum idan la xaasirun kon de yéen nekk ngeen di aji perte ayaidukum annakum ida mittum ama ndax kii da leen di dig ne bis bu ngeen deeyee wa kuntum turaban wa idama ngeen nekk suuf ak yax annakum muxrajun yéen da ngeen doon ñu ñuy génne hëyhaat hëyhaat lima tuadun kawteef kawteef ca la nga xam ne ñi ngi leen koy digee di leen ko tëkki tëkkoo in hiya illa xayatuna dunya lii amul ludul suñu dund ak àdduna gi namuutu wa naxya dañuy dee di dund ay benn parti day dee beneen parti judduwaat rek wa ma naxnu bi mabuusin am maa nag ak dekkal kenn duñu dekkal in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiba kii du dara lu dul góor guy dóoral ci yàlla ay fen wa ma nahnu lahu bi muminin nekkuñu mukk di aji gëm ñeel ko qaala rabbi unsurni bima kadzabuun yonente ba ne yàlla dimbilee ma ci liñ may wedde qaala ama qalilin la yusbixunna naadimin mu ne gannaaw lu tuuti ñoom ñépp dañ xëy di aji rëccu fa aqazathum sayha noonu la leen jàppe yuux ga bil xaq ci dëgg fa jaalnaahum gusaa ñu def leen am mbopp fa bu'dan li qawmi zalimin ak ca mooy na sori ñeel la nga xam ne moom mooy xeetu tooñkat ya thumma ansha'na min ba'dihim qurunan axarin gannaaw bu ñu sos seen gannaaw ay maas yeneen mi ngi noonu mbokk doomu aadama yi yàgg nañoo doyloo seen xel daa di fàtte seen boroom tey depuis que adduna bi commencé def ay révolution ca la ñu commencé indi li ñuy tuddee démocratie lan mooy démocratie mooy réew mi day dañuy xool li neex lu ëpp ci waa réew mi loole la ñuy doxal ci mu réew ci réew mi loolu pays yu bari dugg nañ ci loolu ñay yor julit ak ña yorul julit ñoom ñépp ñu fàtte nag lan mooy xalaatu boroom réew mi nga xam ne moom moom réew mi moom ñu nekk ci réew mi loolu moo tax dañ naan bu ngeen toppee benn nit da ngeen di perte kon lu ñu def mooy daal lu ñu bëgg nañ xool lan la ci mbooloo mi d'accord ñu tëral loolu créer lu ñuy tuddee assemblée nationale boo xam ne mbooloo mi ñoo fa yónnee seeni ndaw loi bu am ñu xool wote député yi ñu ëpp loolu la ñuy doxal waaye mbokk julit loolu njuumte munta passé loolu nañu xam ne suñu borom bi muy yónni ay yonent daa bëgg jaam yi gëm yàlla amul lenn loo xam ne dañ ko tëral lu dul ñu jëkk koo mingaleeg lan la yonent yàlla boobu inci amma suñu borom mi ngi ŋàññ ay xeet falamma jaatuhum rusuluhum bil bayinat farixu bima indahum min al min al ilm lu ëpp ci nit ñi ba yonent yi indee lay yu leer dañoo doyloo la nga xam ne mu nekk ci ñoom ci xam-xam loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax nga la waayi di président au député du kum mën a doon ci kaw suuf nañ xam ne réew mi moomuñu ko moomuñu suñu bopp suñu borom moo ñu moom bépp loi boo xam ne nii dañ koy jël di ko atte ci kaw jullit ñi dañoo war a xool ndax lii nan la ko suñu borom yàlla jàngale ndax yàlla gërëm na ko wala yàlla gërëmu ko mbokk ci loolu dong dong la ñuy amee ngërëmal yàlla ci àdduna ak àllaaxira tey koo mën a doon tey jii masalan nañ ci jël rek benn exemple ku mel ni Husni Mubarak yal na yàlla jéggal ko yërëm ko ndax jullit la woon tey maa ngi dégg ñu ne ñi ngi koy waajal ay funérailles ñi ngi koy jële ca jumaa tel jàkka tel lañ koy jële fa lañ koy waajale pour yóbbu àllaaxira président de la république bu suba dee ci jàkka ji lañ lay yóbbu premier ministre chef parlement chef d'état-major général des armées boo dee ci yàlla lañ lay yóbbu waaye bi ngay dund te ngay dem ci yàlla joojee kon su ko defee nañ xam ne mbokk diine l'islam nekkul jullee koor ak aj màkka diine l'islam système de vie la boo xam ne day engagé suñu lépp looloo tax lépp loo xam ne dañu koy tëral ci ay loi war nañu xool ba nekkul en contradiction ak ndigali borom bi subhanahu wa taala looloo tax xeej yi lu ñu waxoon la in atantum basharan mislakum kii ñëw rek na yonente la nañ bàyyi ñun suñuy xalaat topp xalaatam loolu bu ngeen ko defee ngeen xam ne perte ngeen mbokk loolu julit warul bokk ci loolu kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ndax kii da leen di dégg ne bis bu ngeen deeyee yéen nekk ay yax nekk ay poussière dañ leen di dekkalaat ay way kawtéef waay ay way kawtéef loolu nit ku dee nu muy dekkewaate bu ñu delloo ci alquran nag lu ëpp téeméeri misaal suñu borom wax nañu ko ngir daj seen wax joojee te la koy firndeel mooy lay nekk ci bopp saar bu ñu jàng ko léegi yow doomu aadama sa cosaan toqun mën yi la woon suñu borom ci diir bu gàtt mu génne la nga nekk ab liir kooku boo nekkee ay yax mu ngi laa génnewaat loolu mi ngi noonu mbokk julit looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ñoom day nee nañu ñun li am kii li muy wax dara amu ci ñun dañuy masa dee suñuy doom ñëw dund suñuy doom bu ñu dee suñu sët ñëw dund génération par génération rek donte ne am na yenn mu fassiru yu koy firee ni dañoo jiital daal di yéexe comme li suñu borom di wax naan usjudu warka'u ay ñoom li ñu koy waxe mooy ah ñun daal dañuy namu li borom bi wax ne namutu wa naxya ay naxya wa namut dañuy dund ñu dee waaye dekk amul loo ko mën a firee rek mooy gëmuñu ne àllaaxira am na ñu ne kii du dara lu dul day dóoral ci yàlla ay fen waaye yàlla musul wax ak nit waxumaa nag naan ko àllaaxira am na ci noonu la yonent bi woo yàlla ay yàlla dimbali ma te li nga xam ne ñi ngi ma koy weddee suñu borom na ko muñal ci lu néew ñoom dañ doon ñoo xam ne ni ñuy rëcc lañu daal di yónni jibril alayhi salaam jibril ñëw yuuxu leen ba mu leen yuuxoo suñu borom mu ne def leen xusaa bu dee waa samuuda suñu borom mu ne dañoo nekkoon ko hashimil muhtazir dañu mel na mbopp boo xam ne dafay ruuse ci ñag nga xam ne fa mu toog benn place dootu fa jógeeti naka noonu it waa dëkk ba yépp no fa ñuy leen yoox ga fekk fa lañu daanu kenn suulu leen fa la ñu nekk di seey di seey di seey comme ni moom di seeyee suñu borom tëj page boobu daal di ne ma daal di sos ay mas yi ñeneen mi ngi noonu Cheikh Ousmane. barakallahu fiikum suñu borom mu ne ma tasbiqu min ummatin ajalaha musul jiitu benn xeet la nga xam ne mooy ay ab digam baraw ko wa ma yastaqiruun waaye it musuñoo yeexe dig ba nga xam ne moom la leen yàlla digaloon thumma arsalna rusulana tatara gannaa ba ñu yónni suñu yonent ya ñu tegaloo kullama jaa ummatan rasuluha heure bu dikkalee aw xeet seen yonent kazabuhu ñu weddi ko fa atba'na ba'dahum ba'da ñu daal di toftale leen ca ñoom ca la ca des wa ja'alnahum ahadis ñu def leen lu ñuy ñu ñuy waxtaane fa bu'dan ay aji sori lañu yërmande yàlla li qawmin la yu'minun ñeel xeet boo xam ne gëmuñu summa arsalna musa wa axaahu haarun gannaaw ba lañu yónni musa ak doomi ndeyam ji haarun bi ayatina wa sultaanin mubin ci suñuy kawtéef suñuy aaya ak suñuy lay yu leer nañ ila firawna wa malaih mu jëm ca firawna ak notable am fastakbaru wa kaanu qawman alin ñu rëy rëylu nekkoon xeet boo xam ne dañoo kawe kawelu woon fa qaalu anu'minu li basharayni mislina ñu la waaw ndax ñun dañuy gëm ñaari nit ñu mel ni ñun kese wa qawmuhuma lana abidun ca seen xeet ay jaam lañu ñeel ñu fa kazabuhuma ñu daal di leen di weddi fa kaanu min almuhlakin noonu la ñu nekkoon ca ñi nga xam ne ñu ñu alak lañu wa laqad aatayna musa alkitab doon ci ne ñun joxoon nañ Muusa téere ba laallahum yahtadun ngir waa bani Israil man caa jube wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu aaya defoon nañu it kii di doomi Maryam muy Isa ak yaayam ja defoon nañ leen kawtéef wa aawaynahuma daal di leen di dalal ila rabwa ci wenn tund zaati qaraar boo xam ne dafa ànd ak dal wa ma'iin ak ndox moo xam ne ndox mu neex mu ñuy naan la mi ngi noonu bokk suñu borom def ne gannaaw xeet yi mu alak muy nuux ak waa samuud ak waa xawmu huud dafa tegale maase ñuy tegaloo amul benn xeet bu dul yàlla utuloon nu ko dat bu mu ko war a alage dat boobee seen caay-caay ga taxul yàlla avancé ko waaye ba mu jotee it kenn mënu koo delloo gannaaw loolu it mbokk nañu xam ni yàlla jagleel na ko mboole mi jaamam ay yow suñ caam xamal ni sa borom yàlla day dogal ne bis boo xam ne ca ngay war a faatu bis boobee malaaka yi yor sab téere xam nañ ko heure bu jotee feebaroon nga am feebaroo ñaa ngi woon ci lum mën a doon ci ay xéewal heure bu jotee rek da ngay faatu loolee ku ne war koo xam mu war a doon lu tiital doomu aadama bi ndax xamoo fan la xamoo kañ la xamoo ci ban xaal la lay fekk yàlla nañu fekk ci gërëmal yàlla suñu borom yàlla nee na gannaaw balaa yónni sama yonent ñu tegaloo tegaloo bépp xeet ba yonentam dikkal ñu weddi ko man taftala leen di alak di alak di alak ak sëriñ yërmande yàlla xeet bu dul gëm te it mbokk julit suñu borom yàlla loolu la dogal mooy li ëpp ci doomu aadama yi ay kéeféer la ñuy doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowm alqiyama yàlla dana woo aadama alayhi salaam nu ko aadama kaay demal génne wàllu safara ci sa doom yi mu ne ko yàlla ñaata lay génne mu ne ko junni bu nekk jëlal neuf cent quatre-vingt-dix-neuf safara lañ jëm yàlla nañu yàlla musal ci safara waaye yow élève bi loo brillant brillant concours boo xam ne dañ ne un sur mille mooy réussir ah ah balaa sa xel dal da nga réussir de wala ñu bàyyi ci xel bu wax kon moo tax xeet yépp dañu weddi borom bi subhanahu wa taala nee na ma taftale leen bokk yonent yi noonu lañ doon tegaloo di tegaloo ba ci isa ibn mariam suñu borom dagg yonent yi daal di bàyyi lu jege juróom benn siècle yónniwul kenn ba àdduna yépp namm yonent nekk ci réer ca la doog a yónni nag aaxar nabiyin ke mujjoon ci ay yonentam muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolee mi nga noonu ala fatratin min rusul muy sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mbokk julit mooy ki yàlla subhanahu wa taala mujj yónni mooy ki yàlla subhanahu wa taala dundaloon ñaar fukki at ak ñett ci yonentam ba ma nga faatu sahaaba yi jël ko denc ko ca xabroom ba xabru ba àllaaxira la fay génn la fay jóge ku gëm neneen lu dul lii bokkutoo ci lislaam képp ku gëm ne yonent yàlla muhammad judduwaat na gannaaw bi amaat fi ak njaboot bàyyi fi ay sët wallahi ku mel noonu génn na ci lislaam mi ngi noonu ñu bàyyi xel bu baax dafa bokk ci ponk ngi ngëm yi mooy al iman bi rusul te rusul yooyu wedd ci kenn ak dolli ci kenn ñoo yem am déet c'est un décret bu yàlla décrété ne ñii ñooy sama yonent soo effacé kenn ne kii bokku ci wala nga dolli ci kenn ne bokku ci yow weddi nga sa borom jàll waala am déet loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu rawatina yow mi dund Sénégal kon suñu borom nee na téegale naa sama yonent bokk na ci yonent yooyee yonent yàlla Muusa ak Haroun ñu bokk ndey ak baay yàlla boole ñu nekk ay yonent mu yónni leen ci Firawun ak i notable am ñu daal di rëy rëylu kawe kaweru ci kaw suuf ne ñun ñii benn du ñu leen gëm ndax nit lañu comme ñun te mooy mboolem yonent yi loolu la ñu waxoon muy de un ñaareel bi mooy ñoom suñuy jaam lañu yow nekk suñuy jaam ba pare nag nee na ñoom ñun ñoom ñooy yonent yi ñun ñoo leen war a topp loolee duñ koy def tey duñ koy def ëllëg loolee mbokk la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax moo tax mu ne dama leen a alak mboole seen amul kenn ci yéen lu dul mas na dégg fa yàlla jaalak firaw naa ko notable am te mooy da leen a labal ci biir mer rouge mi ngi noonu fa kaanu min al muhlakin gannaaw ba nag yàlla jox na Muusa ab téere muy tawraat di téere bi gën a màgg bu yàlla joxe gannaaw alquran doogu yónni nag gannaaw Muusa yónni na ay yonent yu bari ka ci mujjoon mooy Isa ibnu Maryam comme na ma la ko waxee ci bani Israil Isa boobu suñu borom nee na maa ko dalal ak yaayam ca Palestine ca dëkk bu ñuy wax Ramla ngeen dégg Ramallah ngeen di ko dégg toujours ci seen kii Ramla boobu fala yàlla dalaloon isa mu nekk fa ak yaayam ja Maryam bokk ci jigéen ñi gën a tedd yu teg seen tànk ci kaw suuf suñu borom it di ñuy jàngal ab dëkkuwaay naka la war a demee nee na dëkk la boo xam ne dafa nekkoon ay tund mooy dafa kawe ba pare am ndox tey à Dakar wala partout dans le monde inondation yi ngay dégg mbokk doomu aadama yi ñoo tooñ seen bopp am déet yàlla dañoo wutal ay joor ay tund yoo xam ne pour ñu dëkkee ko utal ñu ay xur xur yooyee nekk ay déeg nekk ay réserve ñu mën caa bay mën caa réserve am ndox am déet bi kër jafee nag doomu aadama yi fañ waroon a bay fañ waroon a dëkke lépp ñu maasee la ko dëkk yépp léegi nag ndox moo yàlla prévoiroon fa mu waroon a jaar bu ñëwee ah fekk fa kenn ci place am day ñëw dëkk ak moom rek am déet loolee kon ñu war cee bàyyi xel bu baax képp koo xam ne am nga choix bala ngaa dëkk ci ab dëkkuwaay ngalawaay demal xool zone bi ba xam ndax zone bi zone la buy taa wala du ñàkk a taa ak bari tey ñoo xamee ne nii bàyyi nañu ay kër yoo xam ne nii ñetti mbaar ak kër masaar ak ay partout ay sant ni ñu koy waxee ay millions yu bari yéen jotoon liggéey def nañ ko ca gannaaw ba ñàkk ko noonee kon suñu borom mi ngi tegtal ala rabwa ci foo xam ne dafa tundi kawe ba pare zaati qaraar doon loo xam ne lu sable la nekk luy glissé ba pare maïn am ndox mu ñuy naan ca mbokk na it mbokk ngay dëkk dëkk foo xam ne amul ndox it loolee du xel mi ngi noonu Cheikh Ousmane yaa ayyuha rusul kulu min at-tayyibaati
يخفون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
jazakumullahu khayra suñu borom jalla wa ala mu ni ya ayyuhar rusulu ay yéen yonent yi kulu min at-tayyibat lekk leen ci yu tey yi wa'malu saliha te ngeen jëf yu yiw jëf ju yiw inni bima ta'maluna alim man day ci li ngeen di def ku ko gis ku ko xam la wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lii day nekk na seen xeet bi benn xeet benn rek la wa ana rabbukum fattaquun man rek may seen boroom na ngeen ma ragal fa taqatta'u amrahum baynahum zubura waaye daggate nañ seen mbir seen diggante la nga xam ne mooy ay pàcc pàcc kulli xisbin bima ladayhim farixuun bépp parti ca la nekk ca moom ma ngi koy bége fa zarhum fi gamratihim hatta hiin bàyyi leen ca la nga xam ne mooy seen nuur gañu nuur ba baa jëmmi jamono a yaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin am dañoo jort ne lañ leen di dollee ci ay alal ak i doom nusaari'u lahum fi lxayraat dañ leen di jëkkante ñeel leen ci aw yiw bal la yash'uruun la am kay mooy ñoom amuñu benn yëg-yëg inna lazina hum bi inna lazina hum min xashyati rabbihim mushfiqun ña nga xam ne day ci ragal gañu ragal seen boroom dafa doon lu tar mi ngi noon mushfiqun mooy ashaddu xashya walazina hum bi ayati rabbihim yuminuun ak ña nga xamee ni nii seen aaya boroom dañ koo gëm walazina hum bi rabbihim la yushrikuun ak ña nga xam ne seen boroom duñ ko bokkaale mukk walazina yu'tuuna ma ataw ak ña nga xam ne dañuy jooxe la nga xam ne ñu ngi koy jooxe wa qulubuhum wajila seen xol ya ma nga ànd ak di yëngatu annahum ila rabbihim raji'un ne ñoom day ci seen borom la ñuy dellu ulaika yusari'una fil khayrat ñooñu day ñoom ñooy ñuy jëkkante ci yiw ya wa hum laha sabiqun te ñoom day ñooy ña nga xam ne ñoo raw ay ñoo jëkk ca ñooñu mi ngi noonu kon mbokku borom bi day wax yenenti yàlla yi ey yéen sama yonent lekk leen ci yu tey yi te ngeen jëf lu baax mbokk julit suñu yonent alayhi salaam nee na inna allaha amara almuminin bima amara almursalin lam dig julit lam digal julit ñi mooy lam digal yonent yi ca mooy kulu min at-tayyibat da leen lekk lu tey lu tey ñaar la mooy loo xam ne yàlla daganal na ko mbaam xoox bokku ca sàngara bokku ca ak yu deme noonu waaye mu doon loo xam ne it yaa ko moom wala ka ko moom jox na la ci ndigal muy xalaalan tayiba lekk leen ngeen mën a def lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu bokk na ca ne xoolal waa ji nga xam ne mi ngi nekk ci tukki sonn lool ci tukki ba yëkkati ay loxoom naan yaa rab yaa rab yaa rab aji tukkikat yàlla day nangu ñaanam ki tumuranke yàlla day nangu ñaanam ki yëkkati ay loxoom naan yaa rab yàlla day nangu ñaanam moom ñi yëpp boole na ko waaye yonent bi alayhi salaam nee na moom day ma nga lekk lu xaraam sol lu xaraam ma nga xëyee dunde lu xaraam ku mel ni nan la ko yàlla di wuyoo ca kon mbokk ndikkati suñ jaamu yàlla yi suñu bëggee yàlla nangu ko suñ ñaan yi suñ bëggee yàlla nangu ko nañu fexe ba lépp lu ñuy lekk doon loo xam ne lu tey la lépp lu ñuy lekk doon loo xam ne lu tey la lekk nag bëri na ay façon lu doon li nga dugal si biir wala li nga consommé ci lu mu mën a doon looloo tax Saad ibn Abi Waqaas mi ñuy duppee suñu jàkka ji keroog ba mu ñëwee ci yonent bi alei salatu wasalaam ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla nangu samay ñaan def na ko teeyalal sa lekk yàlla nangu say ñaan bu dee sa biir bi doo ci dugal mukk lu xaraam loolee boo ñaanee yàlla may la loolu la borom bi wax mu ne nag li ngeen di jëf xam naa ko gannaaw ba nag mu ne xam leen ne lii seen xeet la depuis yonent yàlla Nuux jaar ci yonent yi ba bàyyi si ci yonent yàlla Muhammad benn xeet lañu islam benn la inna diine inda lis- inna diine inda allah al islam benn islam la man rek may yàlla bi ñu war a jaamu loolee la yàlla waxoon nuux aad wax ko mboolem yonent yi nga xam ne ñoo ñëw gannaawam yépp Huud suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag mu ni man may seen borom ñu war a jaam waaye teewul doomu aadama yi la ma leen joxoon di seen diine muy amrahum dagg nañ ko ay parti parti ku nekk parti ba nga ca féete woo nga di ca bége jàpp ne leneen lu dul lii du dara bokk loolu daloon ni diine yu jëkk ya bi alxuraan di wàcc loolu amul woon waaye yonent bi alayhi salaam prévoiroon na ko nee na sama xeet bi day balaa àdduna tukki daañ ko xaaj juróom ñaar fukk ak ñett ci ay ay ay doxalin mi ngi noonu juróom ñaar fukk ak ñett ay doxalin mu ne nag juróom ñaar fukk ak ñaar yépp safar lañ jëm benn moo tey dem àjjana muy firqatu naajiya sahaaba yi laaj ko waa ñooñu mooy ñan mu ne humu allazina yakunuuna ala ma ana alayhi alyawm wa ashaabi mooy ña nga xam ne dañuy sax te ni may jaamoo yàlla tey mag samay sahaaba mbokk loolu rek mooy parti ba mucc su ko defee lu la waay di jàngal ci diine laaj ko fan la jóge bu lay ne ah sañ diw day la yàlla wàcceel ay xéewal ci jamono tel tel tel tel nga la waay loolu kon mu leer na la yonente bi ak saxaabam nekkuñu ci woon am déet ak bari tey ay yu ñuy jàpp ne mooy yoon bi gën a direct pour dugg àjjana moo gën a mag lu ñuy def te pourtant day bu ñu xoolee amagul ñaari téeméeri at ci kaw suuf yii amagul ñetti téeméeri at ci kaw suuf loolee mbokk nañ xam lu mu taaru taaru bu mu la yóbbaale abadan suñu borom yàlla subhanahu wa taala bàyyi loolu daa ji ne nag bàyyi leen ci seen xëmra mooy nga demoon ba géej wala dex nuur ci biir dootoo gisati lenn lu dul am ndox naka noo nit ki nga xam ne dafa nuur ci ay bidaa du gisati lenn lu dul bidaa yooyu kenn mënu koo won loo xam ne ni dana tax mu jàpp ne lii mi ngi ci erreur bàyyi leen ci loolu ñu nuur ba jëmmi jamono ah benn waay naa man day li ma jàpp muy dëgg ndax preuve bi mooy lii ba ma ci duggoo ba tey samay xéewal li ngi yokk di gaay loolu ngay dégg ah ba ma dalee def lii ba tey ci ganaar laa commencé woon jaar naa ci bëy léegi damay rey nag ba léegi damay rey sax téeméeri nag kon mbir mi dëgg la mbokk dëgg kenn du ko xoolee foofu suñu borom yàlla mu ni ndax dañoo jàpp alal ji ma leen di dolli mooy dama leen di encouragé ci ne yéen yéen a ngi ci aw yiw suñu borom mu ne bal laa yash'uruun xamuñu bal laa yash'uruun gaa yi ki gën a tedd ci jaami yàlla yi suñu yenent Muhammad alayhi salaam am na nag mbooloo mi gën a tedd di mbooloom sahabatul kiram ñu toog ay weer ci du tàkk seen kër am déet rasul sallallahu alayhi wa sallam daana toog ay jour yoo xam ne nii ah da daan takk xeer ci biiram ngir mën a résister sallallahu alayhi wa sallam suñu ay Aïcha nee na mosuñoo tege la ñetti fan ci kër yonent bi alayhi salaam ñetti fan yoo xam ne yépp añ nañ ba suur reer ba suur mosul am ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk boo gisee xéewal yi daje yi ñuy daje ñoo rangale bagaan yi fii ba ak a pes ganaar yi daw nag yi daw fruit yi yàq goo xam ne nii mara de taali ñu jàpp ne kon ah lii bañ ko defee daaw ren dafa gën a yokk déwén am nañ budget bu gën a yokk kon lii muy dëgg bal la yashurun xamuñu lu xew mi nga naan xamuñu lu xew kon yàlla lan mooy sa ngërëm fu mu nekk borom bi ne sama ngërëm mooy inna lazina hum min xashyati rabbihim mushfiqun ña ànd ak ngërëmal yàlla mooy ñi nga xam ne ragal gañ ragal seen borom dafa tar lool mbokk yàlla des ko war a ragal yàlla mooy ki nga xam ne mooy faalu lima yurid lu ko neex lay def yow azibu man yasha wa yarhamu man yasha ku ko neex ci ay jaama mën na la mbugal loolu la suñu turandoo ja alxasan al basri doon wax ba ko gaa yi gisee ak xam-xam ba mu àndaloon ak jaamu yàlla ga mu àndaloon mu bari di jooy nag waaw imam lan la mu ne ah waaw bu ñu demee yowmal qiyaama ñu ne ana xasanul basri ñu ne ñu ne ila naar ah kan mooy wax yàlla lu tax faalu ni ma yuruj wala yusalu amma yafaal kenn du ko laaj lu tax muy def sufyaanu sawri moom it naka noonu bokkoon ci gratu imaamu malik ak shafii am mazhab boo xam ne doon tudde siiwul sufyaanu sawri bari woon ni koy gis muy jooy waaw lu tax lii mu ne ah suñu borom nee ne safara wa in minkum illa wariduha ñun ñëpp daan jaar safara kaana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji lazina taqaw yàlla nee na ñiy mucc sawara moo ñi ragal yàlla ndax man sufyaan bokk naa ci ñi ragal yàlla loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax alladina hum min xashiyati rabbihim mushfiqun gannaaw ba suñu borom yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm samay aaya gëm aaya yi borom bi munta nekk ci xamoo ko munta nekk xamoo ko de aaya yi borom bi da nga koy jàng ba xam ko kitaabun anzalnahu ilayka mubarakan li dabbaru ayati da nga koy jàng xam ko doo ko mën a gëm gannaaw ba nag suñu borom doog a wax ñi nga xam ne duñ bokkaale seen borom ñan ñoo dul bokkaale mooy ñu jàng ba xam mbokk boo jàngul fokk nga bokkaale il faut nga jàng pour mën a xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama faalam annahu la ilaha illa allah tawxid la koy jiitu mooy xam-xam mi ngi noonu ayatina yuminuun bi rabbihim la yushrikuun gannaaw ba it suñu borom ni mooy ña nga xam ne dañuy def la ñuy def ci lu baax ba pare ànd ak seen xol di tiit ndax man lii ma def yàlla nangu na ko aaya bi ba mu wàccee yonent bi jàngal ko suñu yaayu Aïcha mu ne waaw xanaa yu mu yàlla yónni ñii mooy sa njaalookatu xeet bi sa lekkukatu riba xeet bi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare nag tiit nag ah man de def naa lu ëpp mu ne ko déedéet yow Aïcha mooy jullikat yeeg woorkat yi ak aj màkkat yi ñoom ñooy def lañu war a def ba pare di tiit ndax yàlla nangu na ko am déet am déet gaa yi xalilu rahman ba mu tabaxee kaaba ga ba pare lu mu jëkk a def rabbana taqabbal minna e yàlla nangul ñu innaka anta samiul alim suñu yenente ba sallallahu alayhi wa sallam bu masaan julli ba sëlmal li muy jëkk a def astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ndax xamoo ndax yàlla nangu na ko am déet su ko defee kon dañuy def lu baax ba pare di tiit waaw gaa yi jullit bu dee day def lu baax ba pare di tiit bu defee lu bon nag du noonu bu defee lu bon nag te mooy foo defee lu bon nga la waaye tiitaange ba na yegg ci génn ay rangoon nga rëccu toroxlu sa kanamu borom borom bi subhanahu wa taala yi daal di cay dolli ne ñii day ñooy jëkkante ci biir yiw ca mbokk jullit ña nga xam ne ñoom la borom bi ne ñoom ñoo raw mooy ñuy jëkkante ci biir yiw mooy assaabiquun assaabiquun ulayka almuqarrabuun ñii jege borom bi jal jàll wa ala di dëkk darajaat ya kaw ci àjjana suñu borom nee na dañ doon jëkkante ci biir yiw mbokk jullit yépp ñu ngi ci yiw waaye ñu jëkkante ca te ji ñëw jullee ci jàkk ji yiw la waaye jëkkante ca premier sàppe loolu ak yiw la de mbokk jullit jullit ñëpp woor weeru koor farata la ci ñoom waaye gannaaw koor nga jëkkante ci naafile ya naka noonu ak makka naka noonu amul benn jaamu yàlla lu dul gannaaw jaamu yàlla googu jullit ñi di jëkkante ci lool zakat ñëpp la war waaye gannaaw bi nga génne zakat nga jël sa alal di jëkkante ci aw yiw loolee suñu borom nee na nag ñooñu di jëkkante ci biir yiw ñooñu ñooy ña ca raw yal na yàlla boole ñu ca boole ci bépp julit yal na yàlla nangul ñu àdduna nangul ñu alaxira musal ñu ci ay mbugalam àdduna musal ñu ci alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kuy tari suratul mulk yàlla da koy musal ci mbugalum bàmmeel naam yonent bi alayhi salaam wax na loolu waaye mbokk jullit nañu xam ne bépp dig boo gis ñu diggaate ko ci ci ci sunna ngalawaay dafay doon loo xamee ni nii la koy dàq amul loolu moo tax ba islaam danaan ko def lii àjjana la jëm ko def nii àjjana la jëm ko def nii safara la jëm ko def nii safara la jëm su ko defee loolu mooy waral ab xisaab xisaab boobee mooy lan mooy waa ji kat def na loo xam ne nii yeyoo woon na mu def mu dem àjjana mais ndax deful le contraire bu defee le contraire loolu da koy xañ loolu waa ji defoon na loo xam ne kat yeyoo na mu dem safara waaye nag ndax deful jaamu yàlla gu far loolu su defee jaamu yàlla gu far loolu day doon contraire day doon contraire looloo tax tey jii bu ñu xamoon waa joo xam ne day jàng suratul mulk guddi gu nekk wala yow nga ko jàng suratul mulk guddi bu nekk xamal ne loolu sabab la ci musul la ci bàmmeel mais ndax da ngay am yaqin na man kenn du ma mbugal ci bàmmeel déedéet doo ci am yaqin kon loolu ay sabab la yoo xam ne nii boo ci dégg war nga caa profité mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum asalaam wa rahmatullah
buñ ko jaayee ba pare fekk ki ko mu jaay moom ko wala yu demee noonu ñoom fekk ñoom lekk nañ seen commission ba pare ñuy laajaat remboursement comme ñu bëri ñoom ñuy bañ a joxe muy laaj ndax ñu alal bu wax
benn waay moo jaay alalu jaambur jox la ca commission gannaaw ba jaambur ñëw di laaj alalam da ngay delloo commission bi rek ki la jox moom alal jum moomul moom koo xam ne nii dala koo jox da ngay gis ni loolu moom amoo ci droit tey jii bu doon suñu réew yi képp ko bu ñuy bu ñu sàccoon dara ñoo jaay la ko police bu ñëwee dana ko jàpp jàppale la yóbbu loolee kon ki jël alil jaambur jaayuloo la ko nga jaay ko ba pare jël ci commission loolee moom commission boobu leewu la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah non daf koo jëndloo benn téere waa jëkk a jënd dana ko demal laaj ma laajal ma téere bi li muy jar ci ci ma misaal mu ne ko téeméer téere bi cinq mille lay jar bi mu ñëwee moom mu mujj ko jaay téeméer bi quatre mille du loolu ngay wax wa ala kulli xaal bokk waa ji da koo laajoon pour mu laajal ko téere bi luñ ko koy jaayee tey bu demoon waa ji na ko cinq mille mu dellu si ne waa ji cinq mille mu dellu ci waaju waaju na ko ah déedéet téere bi léegi 6000 laa koy jaayee ndax moom dana ci teg 1000 francs du ci teg 1000 francs kon bu demee waaju na ko wàññi naa té téere bi léegi 4000 la dafa war a dem ci waaju na ko ah man kat 5000 la ma waxoon waaye bu ma demee jaayee na ma ko 4000 bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gis ne yónni na kenn ci sahaaba yi na ko demal jëndal ma benn gàtt mi ngi noonu benn xar masalan ci gàttal pour ngeen comprendre mu jox ko tey jii 50000. waa ji dem jënd benn xar avant muy génn daral ga am ko dajeeg moom na ko doo ma jaay sa xar bi mu ne ko ay ca mu ne ko loo ma koy jaay mu ne ko am nga cent mille waa ji jël cent mille jox ko waa ji delluwaat ca daral ga jëndaat beneen xaru cinquante mille ñëw ci yonente bi alayhi salaam jox ko cinquante mille ba pare jox ko xaram yonente bi ne ko waa lii du mu demee mu ne ko sa cinquante mille dama la teel jëndaloon xar léegi jaay ko am ci xar ak cinquante mille yonente bi ne ko yàlla na yàlla barkeel sam jaay waa joojee fa la jógeel bu lu mu mën a jël bu ko jaayee rek def ca bénéfice kon it loolu mbokk bu dee yow dañu laa yónni nga la waay demal na mbir mi demee wax ko ko la yónni moom lu mu la cay may mu may la ko ci loolee ñu bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam amin ñun ñëpp mu defal ñu ko adduna ak alaxira kii jàpp boobu mujj moo xam ne yéreem dafa takkoon sabe yére bu takku sabe ak jàpp bokkuñu dara yére bi takku sabe moom maa nga summi ko indi beneen yére wala nga raxas ko boo ko defee sa biir njàpp yére bi am na sabe demal nga raxas yére bi yére bi boo ko raxasee ci tooyaay bi bu la neexee nga jullee ci mi ngi noonu ala kulli xaal jàpp ak yére bu am sabe moomul benn rapport wallahu alam ah ah naam naam naam waaw après ñu mujj ci moom rek bismillah bismillah waaw waaw
pare léegi boo boo boo defee taw boo pare boo boo kii bu ñëw jël place bi tamit est ce que loolu yoon loolu du yoon.
waaw comme moom comme comme atte na ko incha allah waaw bisimilah waaw bisimilah waaw waaw waaw waaw waaw bisimilah waaw waaw waaw bisimilah waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw dafay laaj rek ci ay teggini yéeg ay escalier bokk na ci teggini yéeg escalier mooy allahu akbar ay bismillah allahu akbar ndax yàlla mooy ki màgg ci yow yaa ngi kawe te yàlla nag mooy ki gën a màgg gën a kawe lépp booy wàcc nga wax bismillah subhanallah nga wax subhanallah loolu mooy heure escalier léegi la xew mais li jëkk li doon cosaan ba mooy ay montagne dañ daan yéege seeni giléem sahabatul kiram buñ daan yéeg dañ daan kabbar buñ daan wàcc dañ daan sabbal loolee ko ñet jaamu yàlla la goo xam ne nii ñu koy bàyyi xel heure boo yéeg escalier nga wax bismillah allahu akbar booy wàcc bismillah subhanallah yàlla na yàlla dëppale ñoo ngërëmam ah waaw ascenseur ak même mooy yépp benn la rek mooy fépp fooy yéeg ak fépp fooy wàcc ba xam naa ñu ngi jéglu mbokk yi tàllal rek ba parce que dafa am ñu nibbi fu sori yàlla na yàlla dëpp la ñoo ngërëmam fi dunia wal axira dëpp la ñoo afiyam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain